jërëjëf jër ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen nuyoo fii ci jumaay Touba ci euh, waxtaan yu am solo yi nga xamante ne ni baaxoo nañ ko ànd ak yéen ci diiru weeru koor yi tey di ñaar fukk ak juróom ñeenti euh, ci weeru Ramadan den bés bi nga xam ci la ñuy dalal kilifa yu mag yi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaanu Touba euh, ci gox yu fasante ko yëpp. tey jii nag daayira Muxaddamatul Xidma tey ginnaaw bi nga xam ne daloon na ñooñu tey ñu ànd ak kilifa yu mag. kuréel bu am solo boo xam ràññee nañ leen ci diwaanu Touba ci murit gi ci l'islam partout ñu am solo lool ci yoon wi. ñoo ñu nag am alaaka bu am solo boo xamante ni ak daayira muqaddamatul xidma nga xamante ne saa su nekk waxtu ne ràññee nañ leen ci jokkoo gi ak demlante gi ak dikkalante gi diggante bi ratax lool tey ki nga xam mooy seen njiit seen njuusu Jóob yàlla na fi yàlla bàyyitoo gën ko yàggal bu baax a baax ñëw ginnaaw bi nga xamante ni ànd nga ak bu am solo Euh, tatagal leen dalal leen am kàddu yoo xam ne jongul am na seetlu boo gis am na yëg-yëg boo gis ginnaaw bi nga xam ne fekke nga jotaay yi ginnaaw bi nga xam itam dugg nga ci jataay bi nga xamante ni wala barab bi nga xamante ni fi la ñuy defee xewal yi nga xamante ni jullit ñu bëree bëri dañ fiy xewloo yan yëg-yëg yan xalaat yan gis-gis yan tolluwaay nga gis ne loolu am nga am nga xalaat boo xamante ni kii nga ko yan kaddu nga ci rotal incha allah seen Yuusu jërëjëf jërëjëf ñu ngi bu wér euh, yëg-yëg bi moom dama yaakaar ne ñëpp ko maasale bokkale ko yëg-yëgu mbégte la akuk cant ndax mbir euh, bu ko sunu borom nangoo euh, ku mel ni seexul xaddim mi nga xam ne moom la ñu nga xam ne daf koo nangu loolu dafa mel ni amatul benn yëg-yëg buñ cee am bu dul sant yàlla ndax euh, lu kawe njort la niñ ko taxawoo ak niñ koy doxalee moo lay wan ne sëriñ bi moom amul loo xamante ne Euh, hasard la ci biram hasard amul ci sëñ Touba euh, dafa mel ni daayira mu xadul matul xidma pàgguteefu sëñ Touba la pàgguteefu sëñ Touba ndax fii ñu nekk nii ak urum bi nga xam ne moom la ñuy liggéey di ko sellal di ko taxaw ku ne xam ne ne euh, mooy pàggutee fu sëriñ bi dara jiituwu ko ci kon nun ñoo ngi sant bi nga xamante ne suñu kóllëre ak ñoom ñoom jàpp nañ ko te di ko dox ñun itam noo ngi ko fas yéene jàpp ak di ko dundal di ñaan la suñu borom mi nga xam ne lu dëgër moo ko téye te dëgëral ko yàlla ñu ko dëgëralal te loolu it dafa mel ni fa ko sëñ Tuubaa nosee woon bàyyiwul benn murit ak moromam foofu ñu boole suñu bopp ci yaa rabbi jaalil muridina ma fi xesnikal xasim wa chamlañ maa ñu ngi ñaan daal sëñ bi nangul ñu lépp te lii itam ñu yàgg koo taxaw di ñaan eh, Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te wér sëñ Afé mii nga xamante ne itam ak woyafam ak nangoom ak ak taalibeem mu nekkee ko ci biir liggéey bi nekk ci biir daayira bi di ko taxaw loolu yàlla na taxawaayam yàgg te suñu boroom nangul ko te nangul ñëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax.